Eh, ca gars yi maa leen di ziar di leen jaajëfal man la Ali seen doom seen jarbaat seen mag di leen woo ci art et culture fii ci senegal ak ci euh, àdduna wërgal këpp ñoo ngi leen di xaar ci semaine gi dañ dem fekk seen i ndaanaan artistes yi yi ngeen xam ak yi ngeen xamul yëpp ci seen i kër ci seen i place ci seen i yëpp foo leen dem nag ñoo ngi leen di bàyyi xel art et culture doon loo xamante ni day jaay culture Sénégal culture réew ndax réew pour mu dox culture am rek a ko mën a doxal ci wàllum football ci wàllum musique ci wàllum couture lépp association yi mouvement yi ñëpp ñoo ngi leen di woo artiste bi bu leen réeree koj leen ko ci Ali Diabaté ci suba baa ci ngoon ndax rediff dafay am jaajëf gaay merci